quelques alors André Modou maa ngi lay jaajëfal donc maa ngi doon seen Amadou baa bu Pastef moom aussi euh, gëjoon nañu ko dégg te bokkoon na si ñi nga xamante ni daan yëkkati kàddu alors Amadou. exemple moom en tant que président boo xamante ni wàllu euh, wàllum yoon waral tey mu euh, gën a mën a nekk à l'aise ngir daal di lancer travaux yi ak si euh, yoon la tey euh, yan jéego yu nga ciy xaar. waaw xam nga déjà li ñuy <clears throat> saluer mooy l'esprit bi nga xam ne mooy anime assises yi maanaam fii kenn wootewu fii pour ku nekk di teg ay kàddu ci sa morom loolu taxul a jóg li tax a jóg mooy acteur yi ci seen bopp. ñoom ñoo gën a njëkk a xam ni justice am na bëri na ay dysfonctionnement ñoom ci seen bopp boo ñëwee ba gis liñ ci bind citoyens yi sax binduñu loolu donc ce qui anime mooy tous les acteurs de la justice euh, muy magistrat yi muy universitaires yi muy avocat yi ak ñi nga xam ne <clears throat> mooy le citoyen ñun ñëpp ñu dajee dajeendoo ak député yeeg ñëpp ñu réfléchir ci justice bi nga xamante ni mooy le pilier central ci état boo gisee ngeen mën a dund en société c'est parce que justice dafa am fu justice amul kenn mënu faa dund en société li nga xam ne moom moo tax ñuy dund en société ñu toog waxtaane ko pour jëlee ci njariñ du pour toog ni teg ay tuuma wala dara esprit bi lool c'est très important et nous pensons que sorti ci assises yi incha allah cette fois-ci duñ ko def assise bu nekk ab assise boo xam ne réforme yi buñ paree yàgg nañ fee dégg ay assises yàgg nañ dégg ay tentative ay tentative de réforme de la justice proposition yi am na pour améliorer ko mais buñ ko waxtaanee bii li nga xam ni njortu nañ ko mooy bu ñu ko waxtaanee définitivement dans les trente ans à venir dinañ jéem a régler définitivement problème bi justice am bu ñu réglé wul yëpp it keneen ku mën a ñëw da nga naan lii moom def nañ ko ba pare wax nañ ko ba pare damay jéem a. am na ci au niveau même du projet parce que am na ci euh, ay jéego yoo xamante ni seetlu nañ ko ci euh, bañ ko euh, xoolee liir nañ ko gis ci lu mel ni juge des libertés gis nañ également lu mel ni changement en profondeur au mu doon ay jéego yu am solo yoo xamante ni ay. ay ay maanaam ay action yu faar la yoo xamante ni yooyu rek war na mën a déclencher li nga xamante moom mooy coppite yi ñu namm ci justice wax nga dëgg mais comme li ma la wax la rek li nga xamante ni fi mu toll nii yàppa a pas amul loo xamante ni euh, dañ koo indi teg ko dañ nañ leen waxtaan amul benn cahier de charge rek lañ teg wax lan lañ bëgg a soppi mais dañ koy waxtaanee amul dara loo xam ni tënk gum nañ ko kon sinon waxtaan bi du am njëriñ moo tax participants yi xam ni responsabilité bu rëy lañ am ñëpp participer pour que population yi aussi ñu leen ciy woo ndax ku nekk addina weer at bi du jot amoo demoo justice wala xamoo ku sa mbokk mu nekk justice bëgg nga fa ay changement ay amélioration plus globalement le service public de la justice bu le but mooy confiance dellu si ci justice bu citoyen bi amee confiance ci justice rek légitimité exécution décision de justice day gën a yomb te loolu mooy état moderne yëpp justice moo nekk le pilier de leur émergence justice mooy pilier émergence donc ñu ngi ñaan yàlla yàlla barkeel liggéey bi merci pour tout voilà dégg ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati na par rapport ak euh, euh, euh, tey thème nga xam ne moom moo fi am donc dañuy wëyal rek jël réaction ngeen rester connecté parce que pause bi 12 euh, heures lay jeex mais en attendant dañ leen di toppal lépp loo xamante ni rek euh, information la en temps réel euh, jël ba tey ji nga xamante ni nii ñoom ñooy acteurs yi fi tase donc Dieye boo mënee approché wu ma gis monsieur le ministre ah muñ ko mënee jël. alors euh, mu nekk Marie Taw Niane moom ngeen doon dégg noonu ñu ko doon nuyu euh, tout donc dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko euh, jëmale ko. voilà donc actuellement ñu ngi ak suñu ministre muy monsieur le ministre de de la communication. moom nag bokk na ci ñi nga xamante ni peut ñoom ñooy tuteuru euh, euh, presse bi ak euh, tout ce va avec la communication donc moom ñu ngi koy xaarandi actuellement mu ngi ak ki nga xamante ne moom mooy Babacar Diagne bu Sénéra donc ñu teewlu ko très rapidement Euh, Lalla waaw comme ni nga ko waxee donc on est avec euh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy euh, ministres yi les députés je vois également ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw pour teewe mbir mi du côté de la société civile et tout donc monsieur le ministre euh, vous êtes en direct Lalla wala nga ñëw waaw ah ah d'accord d'accord euh, il est actuellement avec euh, sar Sarr Ousmane Sarr l'un des détenus donc dits politiques donc euh, mu ngi nii euh, xam naa ne suupa laala comme que ñëw na jox ma legg yi laa laala mënoon nga wéyal rek comme que waa merci beaucoup ci honneur bi André Modou Ndaw waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax waa gis nga tey moom André ah dinaa sonal laala sonal ñëpp pour su ko defee lépp rek ñu gën a dundaloo sénégalais ñuy suivre ah, li nga xam te ne ni moom mooy dialogue bi actuellement ñu nekk en donc euh, le temps ñu jëlal leen quelque réactions alors quelques quelques réactions Euh, ñu ngi ni avec euh, le ministre de la communication euh, Alioune Alioune mais monsieur le ministre vous êtes en direct ci ci Sénégal 7 non non non tey tey tey tey tey. la présidente. waaw ça va yaa ngi may de D'accord, lui il est le ministre de la communication Alioune Sow.